ci mbaax yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaaro yu gaaw ci li nga bëgg ak ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul gisee ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi ma ngeen ko fekk dakaar Patte mercredi ba vendredi man ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def kiis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel. waa jërë ngeen jëf euh, journaliste yi. ak organe de presse fi teew yëpp ma leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay di aussi sant ak gërëm euh, samay xarit euh, samay rakk samay camarade ak andi di jàmm yi nga xam ni bàyyi nañ seen soxla yëpp ñëw fii teew maanaam di ma encourager ci li nga xam ni ñoo laa nekk nii ndaje bi ñu am tey lu ko waral mooy dafa am benn euh, waay bu tudd Ousmane Sonko ak i ay saaga yara di ko ñàkk tegin ñàkkin tegin boo xam ni mënu ko wax mënu ko wax fenn génn ah loo xam ni lu metti waaye bala ma ci dellu soit na tout simplement wax ni man mii maanaam agent de l'état la état bi moom lay liggéeyal ma nekk ci service am boo nekkee maanaam un agent de l'état nekk ministre dafa am loo xam ni daf la war ci état mooy kuréel état bépp kuréel état bu am te ji saytu liggéey bu nga xam ni moom nga koy defal yow danga am obligation fépp fu la wo fu la wooyee te yoon may ko ko te yoon tëral ko da nga am obligation déglu ko wala nga seeti ko ci liggéey bu nga xam ni état moo la ko sant loolu nag dama ciy xaw a xuus tuuti état bi dafa bëri ay kuréel yoo xam ni maanaam day saytu sa liggéey. bu ma ciy jëkk lim mooy euh, IGE mooy inspection générale de l'État nekk présidence de la République kooku bu ko président bindee lettre dim ni ko demal nga saytu liggéey yi ministre liggéey wala les organes de l'État wala maa xam moo xam ni maanaam ay société wala agence day dem fekki leen saytu leen beneen bi Cour des comptes Cour de comptes ay magistrats ñoo fa nekk mën nañoo toog xool ay agence wala xool ay structure de l'État décider dem ni dañuy saytu seen liggéey dañuy dem aussi fekk leen benn rek nga ci am droit jóg ñu convoqué nga dem fa mooy bu amee commission parlementaire comme nag foofu c'est le pouvoir maanaam parlementaire ñoom am nañu sañ-sañ convoqué nga ñëw am na yeneen am na ay IGF nga xam ni mooy inspection générale des finances kooku ministère des finance moom nga mën a bind lettre mu déclenché ko ñëw seet say projet wala say programme am na yeneen aussi am na ay contrôle financier am voilà voilà même le am na sax contrôle interne bi nga xam ni ñoo nekk sa ministère mais am na beneen boo xam ne ngi tudd nag président de la république moo ko créé pour maanaam bon gouvernance mu gën nekk réalité damay wax tey nii OFNAC boobu leen bu fekkee yoon may na ko bu ko fekkee yoon may na ko maanaam mu convoqué man de bu fekkee yoon may na ko mu convoqué duma sax maanaam soldat la damay xel dem fekk leen waaye ci lu ma xam ak lu ma gëm yoon mayul of nag loolu le léegi pour ma dellusi ci lu Sonko doon wax maanaam euh, alarba bi bi passé te mu doon wax ni audience boobule nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko ko audience boobule am na moom ci ay génnam nee na naa wax kañ la naa wax fan la naa wax ban date la ba ma ko kay may booba man maa ngi nekk délégation général à la protection sociale et à la solidarité nationale par Parchap délégation boobu le man maa ngi fa jógee en juillet 2014 te audience le ba muy am moom moo ko laajoon je répète moom moo ko laajoon ba muy am benn fonctionnaire bu mag moo foon te fonctionnaire boobu magistral moom moo teebee audience boobule. waaye nag man du ma wax waxtaan bi nga xam ni waxtaan nañ ko. tout simplement dama mënul comprendre xam nga c'est normal qu'un Sénégalais soxla gis président mu fu mu jaar ku ko yombalal loolu normal la lu normal lu koy mooy nit def ko ba pare di ko weddi loolu moo a jaaxal waaye bu xam nga dañuy wax ni bu fekkee da nga ne damay xeex système waaye bëccëg bi nga ni ndar kàmm ni ngi maa ngi koy xeex waaye bu guddee ngay jaar ci diggante bunt yi di ko seeti boo ci amee problème kooku du ci man ci yow la waaye damay wax leneen pour jeexal waxtaan boobule moom ci boppam am na benn élément sonore moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir élément sonore boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekke loolu nag comme yoon mooy ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé ma bu ko bu fekkee bëgg na ka man ma génn ko bu nee prit man ma génn ko bu neexee yàlla donc loolu lay xaar mu def ko donc jox ko presse bi jox ko sénégalais yi donc maa leen ko gërëm bu baax di leen sant asalaamualeykum wa rahmatulahi taala jërë ngeen merci merci pas de question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 ñëw leen ñu dem Touba wuy ji mu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet yi Ah, di ñu bàyyi xel ci seen euh, chaîne production Tawfekh production ñoom mbégte di leen nag yëgal bés bu am solo bés bu màgg bu ñuy dëgmal di lan fukki fan ak juróom ñetti ci weeru safar atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ah safar googee nag di fàttaliku nag demuk Seexul Xadim seen Tuubaa Xadim Rasul ci géej gi tukkeem boobee mu doon woote ñëpp sant ko ci yàlla ah mbokk yi mbégte googee nag waral na Tawfekh production bëgg leen ci gunge si safar yi képp koo xamante ni nag bëgg nga ci ah ñu gunge la ci ak image yu am solo yu am qualité leer nañ ñëpp mën ko dund ci diaspora bi fépp ci biir xëbu Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi di 77 251 04 05 ah mbokk yi ñu déplacé wu ak suñu équipe bu xarañ bu xarale lool ñëw nag fekk leen fi ngeen nekk ak bërëb bu ngeen mën a nekk jëlal leen seen xeexoo boobu seen évétement yi ah yemuñ foofu de ak màggal gi képp ku bëgg nag fësal seen njaay moo xam publicité ak lépp lu jëm ci lu lay gunge ak lu lay feeñal ci bés bu am solo bii wooteel tamit ci numéro boobule di 77 251 04 05 daañu lu ci gunge dafa la ci nag liggéey bu mucc ayib ak image yu leer naññ ak équipe bu xarañ lool. bés boobee nag am na solo am solo goo xamante ni nag waa Tawfekh Production bëgg ci indi lu taw féexe bëgg leen cee gunge bu leen ko fàtte woote leen bu baax ngir am suñuy. nouvelle ah mbokk yi ci tamit ñi nga xamante ni bëgg nañ ku leen jëlal seen événement ci jouru màggal gi woote leen tamit ndax Tawfekh Production am na équipe bu xarala boo xamante ni fépp fu nga leen woo ñu wuyu si leen ngir jàppale leen ci liggéey bi ndax ku nekk xam ne ne bésub Serigne Touba nag bésub ñëpp la ah waral nag waa Tawfekh Production bëgg leen ci indil xéwal taw feexal leen ci lool gunge leen ci kon bokk mbokk yi woote leen gaaw ci numéro yooyu ci sunu écran bi 77 251 04 05 waa Tawfekh Production ak équipe bi mu àndal ñuy ñaanal ñëpp màggalu jàmm waaye tamit di ñaanal.